maam waalo loo jotee ak sëñ Bada ak Ndeye Guèye. sëñ Bada ak Ndeye Guèye. loolu tamit kaa la de <laughs> maa ngi nuyuwaat Bamba Faat Fall Ballago mi ñu seetaan macha allah moom mm-hmm. tamit. Mm-hmm. ku baax la ku la bëgg moom ku baax la tamit daf ñuy bàyyi xel ak ni ñuy seetaan ñëpp nag. ak Ndeye Ami Fall sama doom ndey bis kër yaa borom maris maa ngi leen maa ngi leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax. bijou création. bijou mhm. création sama xarit boobu nga xamante lu baax lu ma sol moom la mook taala Sénégal. cum moo sañse lii. <laughs> lii euh, sëñ Bada ak Ndeye Gueye jotewuma ñoom dara. dégg naa démb sëñ Bada day live toute la journée pour mu yow. Mhm. toute la journée. waaw man yéex naa ko déglu sax parce que sëñ Bada man dafa nekk nit koo xamante ne nii dama ko bàyyi xel pour toujours dama ko bàyyi xel. da nga ko damaa bàyyi xel sëñ badab te trop parce que dafa dugg di live ma romb ci sénti Ndeye Gueye mu toog fa di waxtaan muy waxtaan ak ñoom ak Zimon Afia yi xale seex yi ñoom ñëpp ñu ngi woon ci live bi. ak Mbaye Koutia. ak Mbaye Koutia yaa ngi dégg ñuy waxal Ndeye lu baax te nit ku nekk li nga ko xamal ci lu baax loolu danga ko mën a wax doo séddal nit loo xamante ne nii xamaloo ko ko. Mm-hmm. ma waxal Ndeye ne man Ndeye Gueye mii. dafa nekk jigéen ju mën góor ndéggéey bu amul oto ba léegi wala kër macha allah kër a tax parce que jàmbaar la nit ku baax la nit ku mën a téye ay fameem lañ parce que man sama nekk foofu ak ak ndéggéey jarut ma di ko wax sénégalais yi parce que man képp ku ma xam ku nekk xam na ne man maak euh, rakku ndéggéey ñoo doon sëy sëy naa maak moom xaadim maa ngi koy nuyu bu baax sekkuma ak ñoom dara lu dara lu ñaaw sama doom andiwu ma koy fan yee bamba mm-hmm. biñ fi jógee damaa jubali ak ñu moom kër maamu kër tantaan tantaay mu seeti ji ko taat aram ci maa ngi koy nuyuwaale moom tamit ak njóoba ma seq ak ñoom jàmm kon ba ma nee Ndeye dafa bëgg njaboot ba du xaar ci ay rakam dara bëccëg bu nekk ñaari junni lañ doon jox dépense lool est-ce que dafa aay. déedéet <laughs> aayut loolu laa wax. ñu bëgg maa soo biis yaay bëgg maa wiir ci kaw sénégalais yi duma ko nangu mhm. parce que sama diggante ak ñoom nekkul loo xamante ne nii lu concerné sénégalais yi la ba tax ma di ko wax may toog di ko manifesté wu ci nit ñi li ma ñor diggante bi ma ñor tam naqari ma un erreur de communication def naa ko ci def naa interview wax ak nit tudd ci sama mag ametu sénégalais yi foofu lañ bëgg a wéer maam waalo loolu jàll na coow loolu jàll na tool loolu jàll mais nit ñi chaque jour loolu la ñu indi di teg loolu jàll na yow am na léegi cool sama mag la mhm. yaa ngi dégg ndéygay nag man sekku maag moom lu ñaaw ndax dama kaa jural doom yaayam jee abipuy mu ndaw duma ko wax lu ñaaw lu rafet li ma xam ci moom laa seede ci moom sëñ Bada nag dama koo pare pour toujours sëñ Bada su ma woowee appel bi coupé sax dama ko arrêté parce que nekkul nit ku baax nekkul góor goo xamante ne lu baax moo ne ci dënnam parce que sëñ Bada day féewale du du boole day féewale démb nag day dafa def tuuti erreur erreur bi lenn la man sëñ Bada ni ma ko préparé dafa maa woo ma dégg muy wax laay ma ne ko yow ba Bada xanaa da ngay live di ma woo mu ne ma waaw ndax li nga leen déggee ay rakkam duñ joxe dépasse waaw lu la ko ci laaj. eggalewut sax man tamit ma saaga maa ngi koy jégalu Sénégalais parce que ma toog public di di diglu ma saaga mais boobu damaa mer. mais bi ma woowee li ma ko ma ñàkk mayee mu muy dig mu wax ak man bu woowee ndéygee wala mu dugal ndéygee ci laay fam mu dugg si vie privée maa maa ngi ndéygee ma waxal ndéygee lu baax ndéygee da ko war a wax ne eh sëñ Bada man waa sama rakk la sama jabar la woon wax boobu nag gas ko ci suuf parce que man waa lu baax la xam ci man loolu la wax ci man. ndëgge awma lenn lu ma loo xamante ne damay toog di ko ko waxal ci lu ñaaw parce que gisuma ko ci moom gisul ci man tamit lu ñaaw lu may waxal rakkam Cheikh Gueye sama doom bu may kumb dee xam anniversaire Cheikh Gueye moom moo tax may anniversaire sama doom parce que anniversaire maman abi bi mu njëkkee dëkk Cheikh Gueye moo ko feete xaaru ci papaam Fara Gueye noonu Aline Ndiaye noonu. seen yaay lañ ko tuddee. seen yaay lañ ko tuddee moo tax gëmewuñu ko. kon foofu lu ñaaw amul foofu sëkku ma ñoom lu ñaaw dama fa sëy war a war naa faa sëy sëy naa fa yàlla moo ko jeexal kon foofu lu lu sëñ sëñ Bada di ma fa taasal. amu fa mais li ma jaaxal xam nga lan ma jaaxal. ma ba pare xam nga lan moo ma jaaxal lan ma déranger. Hmm. maire bi dugg ci live bi tam tudd Mami Gueye maire boobu yow boo amee sa conseil na nga ko téye xam nga sa conseil kan ñan ngay jox conseil man fii awma fi vidéo defuma fi taatu neen tëju man tëju ñu ma fi kaso defuma fi lu ñaaw waxuma fi lu ñaaw jigéen laa kon samay naw lay jigéen ñu jur ma fan ma war a juree booy conseil naan man waal na xalaat ne dafa am ay doomi jigéen ay doom ëllëg wala firin Dakar googu orine ko fay jox na xalaataat ëllëgam moom na wax ak ñi def yaramu neen ci internet bi ak ñi wan wangeetu ak ñu dugg kaso ci jigéen def lu ñaaw na ko buy koose na koosee ñooñu. Ah, <laughs> man kenn du ma soo biisee. lu ñuy wane nii man kenn du ma soo biisee kenn du ma soo biisee live bi tudd ma fa kenn ku dul Ndeye Gueye ak waali Seck dama ne man sama bët yi xoolatuma ko kenn ku dul Waly Seck. sëñ Bada xam na waa léegi maam li ma la. parce que Waly Seck fekk fu mu métti lool. mu tar lool mu teg ma lool mais maam xaaral ma laaj la nag nga soog a continuer xam naa sa yaram tàng na mais mayo ma laaj la ah? ma laaj la démb am nga loola metti am nga loola metti wax dëgg yàlla ba danga maa woo may la maam ah? alaaj la wax dara na ma kii rek démb danga maa woo ma ne la euh, am nga loola metti mais bul def dara parce que lépp looy def da ngay toog sa plateau nga waxal li ngay wax leeral parce que sëñ Bada keroog bi ngay def ak moom live yow ak yow yaa dugg ci live am te moom mi ngi ci live bi ndegee Gueye ngi ci live bi man maa ngi doon seetaan live bi en direct léegi Ndeye Gueye kay fu mu nekk yow doo fa jëw loolu du jëw parce que yaa ngi Ndeye Gueye ngi fa. man damaa jëwul sax. wax ju rafet laa waxal Ndeye Gueye. ndax loolu jigéen gu nekk. waaw war na kaa mën a nit di waxal la ko. waaw léegi da nga ko doon ma ne Ndeye Gueye du nekk benn kër kër di fay. léegi sama problème mooy lu tax jour boobu sëñ ne la maam li nga wax nii boobu laaj boobu loolu amu fa mais léegi quoi ñu xaar quelques jours après pour indiwaat wax ji man loolu laa la bëgg la man damaa xam la ma war a mën a indi wax ji dara indi ko neena ay nit dañ koy woo kenn woowul sëñ Bara maam waxal te bàyyi sa téléphone bi nag. non sañ Bada kenn woowu ko. waaw léegi nooy def ci sa téléphone bi. sëñ Bada laay parce que sëñ Bada preuve la nit ñi xam. sëñ Bada def ne ci live bi. Hmm. man xamuma amut ak man affaire xawuma xamaanuma ko. waaw léegi loo bëgg Ndeye Gueye moom moo tax. man moo tax mu dugal ma ci live bi mais bul teg fii dara de. sëñ Bada laay tegal non non bu ko teg bu ko teg. sëñ Bada dinaa ko teg. non non bu ko teg yéen sëñ Bada wuy ma maam leeralal rek sëñ Bada fii lay liggéeyee. sëñ Bada ba xam nga ne fi lay liggéeyee. da ngeen di showbiz rek. damaa bëgg mu xam ne <laughs> damaa bëgg mu xam ne man kenn du ma showbizee mm-hmm. man sama vie bopp sama vie la yow mère xaw ma noo tudd kii ma liggéey man lu may def ak lu mu dul def du yow yaa ma koy wax. d'accord bu amee ku muy conseil na dem conseil ji ñu def yaramu neen. man fee gis nga man bu man di def su fekkoon ci waar photo ma sax dérange wu ma. Ah, xam nga lan ma baax ba émission ngay def émission laay def dafa kuróo dama am loo métti eh, eh. parce que xam nga lan moo eh, dañuy seede loo xamante nii xamuñu ko waaw maam déglu déglu déglu émission ngay def xuloo woo man maa la pose question donc question bi ma la posé dama bëgg nga répondre ci ak dal yow mënoo di répondre à chaque fois que nit ñi nit ñi nekk man dinaa nangu Feeling ah. Dakar fi ngeen may def loolu loo xamante ne man du ma arrangé ah, ma déglul déglul déglul ok ok on passe si si sax ñu jàll ci leneen parce que euh, li nga bëgg a waxee du ma nangu nga waxee noonu parce que mënoo di tontu ay nit yu nekk ci TikTok bi di wax wala nit ñuy toog di commentaire wala nit yoo xamante ne dañuy toog a chaque fois ñu wax lu leen neex mënoo leen tontu fii ci plateau bi on fait une émission très professionnelle du c'est dama la laaj pour nga expliquer euh, euh, lan moo waral sëñ Bada parce fait coow laa dégg sax diggante maam Waalo Ndeye Gueye sëñ Bada ma bëggoon leeral coow li leeral nga ko ça suffit amuloo pour tontonte kenn fii donc parce que ñiy wax ñëw si ñëpp si yow wala voilà c'est pas professionnel nga toog fii di tontu kenn donc on passe directement vu que leeral nga ne yow ak Ndeye Gueye amu leen benn problème dañoo yaakaaroon ne yow ak Ndeye Gueye da ngeen am problème wala danga nga waxal Ndeye Gueye dara donc leeral nga ko. ma Ndeye Gueye ma ko waxal lenn xaadim sama bi ma doon sëyal tamit du ma ko waxal lenn lu ñaaw. ça parce que xaadim defuma loo xamante ne nii suñ diggante day jeex man tam defuma ko loo xamante ne suñ diggante day jeex parce que dañoo am doom ak moom. Fama Kassé Fama nekk nit koo xamante ne nag nit ku baax la woon. Fama Kassé nee na lépp sëñ Bada la. ba tey tamit dafa baax kenn mu duma xëy bis ni dafa baax ba daa bon. Bada mi tiit naa xaadim bëgg na njaboot day téye njaboot normal. bëgg dara lu naqari njabootam. Mm-hmm. fi ngeen ni maman Abi Pouy mii maa ko jël ci ay loxo. yaay waxaat yaay waxaat fii nii nii eh, damay wax damay wax rek nga wax ñu ngi damay damay wax damay wax li ma xam ci xaadim laay wax parce que xaadim nit ku baax la nit ku dal la te nit ku yaru la yàlla mooy jeexal diggante moo jeexal sama diggante ak moom. te sama diggante ak xaadim dara du ci ñaaw. te dara ñaawu ci. jabaram tamit nekk nit ku baax. Mm-hmm. <laughs> yow li interview ngay def dégg nga. jabaru xaadim saa yu jógee Europe takkal samay do jënd andil ko uh, kii nu mu tëdd sax ay bagages. maam kon man foofu kenn mënu ma faa jaxasee kenn. maa ngi ñoom réeréewuñu sama papa Léwi Guèye nekk sama xarit teg ma ci xolam bii barki allah ji farlu Mbàkke sama diggante ak ñoom dara ñaawu fa. ñaaw Abdou Khoudia bu ñëw sa kër. waaw kay. nga def interview dégg bu ñu amee ñu ñuy yedd nañ defi ñu nañ dem yedd ñi def ñiy def taatu neen. segam ñi def taatu neen ñoo am pourwaa ci dëkk bi asaltumaak man mi am lu a naqari kese wax ñu bëgg ci ñu bëgg koy mbubboo ñu jug ne amet yu amet yu amet yu sama mag la sunu ñaar ya maam yee bokku ndey ak baay ma bëgg magam lool lu ma mën a am Alioune Samb ma ko gënal benn jooy laa am ci internet Alioune Samb laa koy jooyal parce que moo lu ma xam moo ma ko xamal sama àdduna yëpp kooku la kon ametu su ma ko tooñee far fos dama koy baalu àkk parce que sama jëkkër la sama mag nan génn ci gaam boobu sagam jàmbur ngay tooñ di ko jégalu asantuma ak sa nag ametu ma mooy man maay moom nan génn ci gaadoor ametu am na ba pare te kenn du ko effacé ah. li naan àddina loo fi gis bu nekk kasat la des koy arrière lu waaye di wax na nga ko xam ku bëgg bës bu mu ko bëggee ci man ku am looy yedd bul ma koy yedd na nga dem yedd ñi def taatu neen ban tëj leen kaso. maam émission man dama kay euh, ñi fi def taatu neen ban tëj leen kaso. ñi fi def ay photo ba ñëpp takki seen bëgg sagam ñoo mën a am pourwaat ci dëkk bii asantumaak man mi am lu ma metti kase déen wax ko. Ah, ñu bëgg cee ñu bëgg cee galandu du ma ko nangu. léegi c'est bon waaw maam merci jërëjëf merci maam c'est bon. Euh, dama maam li ma jaa moom buy wax man lay joxeñ man lay xool. c'est bon maintenant c'est bon maintenant donc euh, je pense que là. c'est bon leeral nga ça suffit. émission émission kii damaa xam yooyu Pape la ci émission bi day ci yàlla ci yàlla man damaa bàyyi. ah man lay joxañ man lay xool. émission émission bi ma émission bi ma ngay kawe rëdd ko jox rëdd ñu koy jox man ban rëdd laa fi am. maam jël baax na doy na maam doy na ah. wax yi ñoom ñoom affaire amertu bi ñàkkaa ne daf maa yàq affaire amertu bi barke Seydina Muhammad góor yàlla Baye Fall bu jege Waly Seck eh, di def taraanga may na ma ci kër Tiwaawan Pël eh, te dana ma woon bu ŋaang loolu ci àddina tant que sama ma li ma bëgg a def <laughs> ba ba ba ba nga mën koo mën a wane ñoom loolu lañ bëgg a jël teg te man loolu daf maa defar ndax loolu ma indil Feeling dakaar gii nag jox ma Waly Seck ma fii ma toog fii am fi jàmm nag am fi salaam am fi ay ay jour ak weer nag may jox macha allah ah, léegi kay. waaw maam jërëjëf nag léegi dama lay dàq de. <laughs> boo ma dàqee ñun ñëpp demandoo <laughs> ñun ñëpp rek faawandoo. te man. du noppi. ma jaar moom yaa ngi moom jàkkaarloo xam nga keroog jéeg na ma loo may xool. tey man lay wax di ma joxoon di ma def nii. dig sama damaa xam ne kat ñi dañuy bàkk nit. bëgg soo bi booy soo bi doo xool ki ngay soo bisee. dégg nga Fama Kassé na maam doy na. doy na waaw doy na kay baax na ça suffit leeral nga. leeral nga c'est bon. Euh, nañu coow yow ak Ndeye